asalaamaaleykum bokk yi ñu ngi leen di nuyu di nuyu sunu bokk journaliste di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di nuyu Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal jàmm waaye nag di bokk ak sunu askan metit boo xamante ni nag lii kuñ ni kër la goo xamante ni seenu njaboot dañoo génn borom kër gi nekk na taxaw di Ibra muy kër Baay Bada Pen ñu nekk ci sunu jàmm. ca dugguñu ba ci biir ndox mi ànd ak ñoom wax dëgg yàlla duñ ay gor. fii nag ni ko sama jëwriñ waxe du jar ma ciy dellu si mooy fii ci Guédé ku ne xam na ni coono bu métti la ñuy dund rawatina danse public bi fi nekk muy post courant bii ngeen gis nga xam ne post bi biir ndox mi la nekk muy beneen jafe-jafe yàlla dogal na nag ndox mi nga xam ne mooy pomp bi jógee. déeg Dakar ak bi nekk ci wetu ko sëñ Bass bu Khadre rek pompe yu yëpp yàlla dogal na bi taw bi amee yu bari dafa sakk comme ni ñu ko waxee woon mooy bassin ba dafa fees muy bassin bi nga xam ne mooy bassin bi nekk Kër Ñang ba tax na waa Kër Ñang ñëpp génn ndox mi daal di ñëw fi dugg ci kër kër yi. noo ngi nuyu Cheikh Mamadou Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te ko lool ba naa naa yëpp mu àggale ko jàmm. tam yàgg lool tam defaat yeneen tam fekk yëpp ci barke Sëriñ Tuubaa waaw léegi nag li suñu taxawaay mooy comme ni ngeen gis si suñu kër yi ñu mel nii daga naa koñ bépp nii la mel dugg ngeen ci kër yi dugg ngeen ci koñ bi dugg ngeen ci kër gi gis ngeen ni mu lépp am la yàlla dogal na sax korite lii ñuy jóg euh, muy tam xarit jotuñu ko fa defar njaboot gi yëpp tasaaroo nañ ñii ngi ci kër yi dëkkandoo yi dëkkandoo yi ñii baax lañ ñii ngi ci kër yi dëkkandoo yi man mii maa ngi feneen keneen rakk yeneen ngi feneen léegi kër gi nag mi ngi fees dell lal yeeg armoire yeeg béy yëpp a ngi ci biir daal jotuñu mën a génne dara ndax guddi la 2 heures du matin la commencé bàyyi 4 heures kër gi fees dell ñun ñu gi fexe ba raw génn suñu borom dimbali ñu defal nu sutura nu génn dañuy sant suñu borom nag ndax ab jaam moom amul lu sant yàlla ak suñu ko bind suñu borom nag duñu yàqal dañuy defara rek damaa jàpp moom dañoo defaral noonu waaye doomu aadama nag moo gaaw a jaaxle moo gaaw am ay jafe-jafe kon nag loo tax ñu wax ci cadre euh, jafe doomu aadama di ñaan tamit gis nga lii sama rakk yi nga xam ne ñoom laa bokkal koñ bi ak ñi nga fi nekk ñëpp gis nañ taxawaay yi jàppale nañu dimbali nañu ñoom itam waaw li ba ko defee nag kon liñ ci wax rek mooy ginnaaw ba ñu sante yàlla sant yant bi sant suñu Tuubaa bu wér wér noo ngi naan ñii daal ñoo ngi ñaan suñu borom ay saafara kuñ ci jàppale ginnaaw bañ ci sante waa sapeur pompier ñoom itam wax dëgg yàlla gis nañ seen taxawaay xaj na sax yóbbaguñ dara moom waaye nag ñu ngi ci wàcc ci terrain bi ak sëñ mu Jóob Jawbe mi nga xam ne mooy itam mosuñoo seetaan même daaw it fi la taxawoon diñ ci jàppale bu baax. di am naqaru xol ci li nga xamante ni moo dal suñu mbokki dëkkandoo yi muy métti bu jéggi dayo bi barki démb bi taw bi tawee ba sebet ci la mel nii waaye daanataa naam mbedd yi mais daawul deme nii li ko sabab nag mooy dafa am canal bu bees bu defar daaw li jóge ci tëli Sëriñ Bas bi jóge Dégg Daxaar jëm kër Sëñ Fallou Gamo moo sabab mettit yi yëpp. te suñu diggante moom même pas cent mètres la ñu taal pompe boobu ndox mi war a dem demul mu del si ci kër yi yi nga gis ñu génn ñëpp daaw ñu génn ndox mi naam daana ne ci buntu kër yi mais daaw ñu génn canal boobu mooy li nga xam ne moo ko sabab yàlla gisaguñ ko moom gisaguñ képp koo xam ne bokk na ci état ko ñi nga xam ne ñooy gën yi nga xam ne ñoo fi nekk nga xam ne ñoom doon nañ def démarche yooyu di ci lijjanti ak jàmbaar lañ ci dañ leen contacté contacté waa ONAS ak seen directeur bi ak seen yëpp ñoom jot waaye nag dañ ci joxoñ baaraamu tuuma ONAS ak kilifay dëkk bi maanaam ni ma war a wax mooy gerte dañ leen a seetaan surtout tund yaakaar naa koy defal canal ngir ndox mi jógee tëli bi kër sëñ Bass jàll ak dégg da xaar même pas 100 mètres nga seetaan leen nga xam ne boo fa tëraloon tiwo am ñaari regaat ndox war a mën a dem defuñu ko kon mën naa ne Guédé amuñu ko leen taxaw te dëkk na ñoom ay kilifa ñu ñu ñu mën a lim ñu ñu jege ñu ñu ngi jéggalu nag ku ci mel ni sëñ Bass Abdou Khadre soriwuñu dara da day teggi ba ñëw ba seen ndox mi te jàpp naa ne kilifa la waroon na cee war a mën a wax wala mu dox ci tànk yoo xam ne waa Guédé dañ xam ne kii kat taxaw na leen ndax yaakaaruñ ku dul maamam ak keneen koo xam ne député la te bi mu amee léegi tegu fi tànkam te du ne yëgu ko ndax man maa ko waxal sama bopp man dëgg rek laa àndal ku may mere ci nga may mere ku may bëgg ci nga bëgg dafa metti torop nag ndax ñun barki démb ba léegi daanaka bala ngaa añ tàkkusaan wala timis di dund lu mel nii tam xarit ñii ñi ngay gis kenn defeewu ko dafa am nag ñu jëloon te wàccuguñ ko sax nag ndax bu tawaatee pomp bi buñ ko taalee bu soobee yàlla yaakaar naa dana demee neneen solution bi mooy nañ fexe am fii am regard bu ñu taalatee ndox mi bañ fee mën a ñëw kon ne dem bu buñ ko deful yaakaar naa buñ taalatee pompe bi yaakaar naa dinañ ko digaale ñun ak waa ji nga xam ne moo koy def dafa metti ndax li tax mu metti mooy gisuñu kenn ku ñu taxaw ñun ñoo doon def suñuy effort yi bopp di di di dugg di génn ba pex yi nga gis kas néew sapeur ñëw indi seen i bagage def ko buñ jógutoon du am waaw ah, poste courant bi mu ngi jegeeg suñu kër yi te ndox mi day dugg ba ci biir waaw ah. te tey jii bu ndox mi duggoon ci poste bu ndox mi laalee courant bi gone yi dem ci dem dem ci euh, ndox mi mu indi leen ay conséquences yoo xam ne doo xam fu muy jógee loolu mooy li nga xamante ne dañoo naqari trop ñu bëggoon ko wax man nag man am sax damay joxeñ baaraamu tuuma étape Sénégal nawlawuñ Touba ndax tax wuñ Touba problème bi Touba di ko dund dafay yàgg ci jamonoy Abdoulaye Wade ba négéen ñu ne ñoom mën nañ jëlee fi Abdoulaye Wade 2012 man bokk naa ci ñi àndoon ak ministre Mor Ngom bu doon xooli assainissement Touba gis nga buñ ko jiiñ Touba ca kanam wala ñu jiiñ ko kenn responsabilité la ñoom kilifa yëpp dañ ci yow bañ ci waree def jéego dafa yàgg ndax Touba ni muy màggee dafa doy waar te kuy boromam xel war a xam ne assainissement bii ne ci dëkk bi attanul dëkk bi dañ koo war a defar ut ci ay saafara te li ma gën a naqare mooy at mu jot ñu ne nangam milliard dugg na Touba doo gis dara ñu paacoo ko def ko seeni poos askan wi di dund doo ci gis kenn loolu doy de bu ñu indiwaatee yeneen ndimbali jëm si askan wi ñu paacowaat ko def ko seen poos dafa ñaaw sax ci ñu ne la kilifa nga yow dëkk Touba lii di am dafa am nag lu fi nekk boo waxee dëgg tudd kenn ñu ne amul taalibe ñu am taalibe lañ am nañu sëriñ ci dëkk bi lañ dëkk gëm sëñ Touba yaakaar ko sëñ ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu tëwér lépp lu mu war a def mu ngi koy def lépp lu war a def mu ngi koy def mu ngi taxaw dëkk bi bëggul dara dara lu naqar dëkk bi waaye ngir yàlla ñi nga xam ne ñoo koy joxe information nañ koy wax dëgg dëgg lii jafe-jafe yi dëkk bi lii jafe-jafe dëkk bi nañ ko wax sañ mun taxaa di sant bu baax di gërëm waa Sapeur ndax at mu jot ñoo fi sol waaye ren da cee raw mu job jawbe ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax depuis mu yëkkoog léegi mu ngi def ay pexe mu ngi dem ak a ñëw ñu nag moom ñooy xëy ànd subaa ngoon ku ne boole na nag moom ngir liy jóge nu ngi koy sant bu baax na nit nag boo ko xamul dëgg dëgg dëgg doo mën a xam waaye am nañu yor ndombay tànk dëkk fi dama koy wax ca kaw moo leen ko gën a yeyoo ndax moom la ñu gis moo ñuy taxaw mooy def ay effort te ñooñu ñu ngi leen di fay ci suñu alal ñu tëdd ci te waroon nañu mën a ñoo taxaw waa waa loolu mooy li nga xam moo ñu naqari te di ko waxaat te di ko waxaat mooy pompe bi li wut oruñ saafara ay regard bu buñ taalaate pompe bi danañ ko jëflanteeg ñoo yor pompe bu soobee yàlla li ñu xaar mooy kilifa yi ñëw xool li fi ne ñu wax leen li nga xam mooy jafe-jafe ñu xool ut ci saafara lii daana am ndox daan fi am mais ni mu demee nii ba dugg ci kër yi génnee ñenn ñi pompe bi moo ko waral li fekk utuñ ci saafara nag buñ ko taalaatee danañ ko bàcc bàccal ma loolu moom amul ma dem te ñëw. njaboot gu tasaaroo métit ak naqar ak jaaxle dikkal leen ndax lii kuñ la kër la ca gisuñu moto kenn ku fi taxaw pour pompe ñu ngi sant sapeur nag ndax wàcce nañ fi léegi waaye ñu ngi sollicité Modou Diop Diaobé wax dëgg yàlla li ñaan nit ki boo ko dee dégg ca jaxasoowu leen du ngeen doo ko xam waaye xam naa ne askan wee ko fi taxane xam naa ne askan wi lay jàppale non seulement xam naa ne nit kuy défendre. opinion Touba la moom Touba la bëgg fépp ci Touba amul foofu tegu tànkam bi kon Mat Diop tey bu dikkee Kër Baay Bada Pen gii xam na ni métit moo fi nekk waaye bu doon bokk dong am na feneen fu mu mën a taxaw bu doon lu responsabilité am na feneen fu mu mën a taxaw kon Mat Diop Diaw bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare non seulement di la sant ci responsabilité xam ne bu ñu takkaloon aw raaya mbaa ndomb ak tànk goo mën a dimbalee askan wi sa askan duñ jaaxle ndax li nga yor bokk nga ko ak ñoom partagé nga ko ak ñoom ak lu mën di doon nag mu wax dëgg la am na ñoo xam ni seeni ceeb yàqu na ak seeni dund fan lañ koy jëlee am na ñoo xam ne seeni fonce yéen a ngi gis ni fii fonce yi ak biir lépp mu ngi ci biir yàqu nañ am na ñoo xam ne génnewuñ ay matelas am na ñoo xam ne génnewuñ ay seeni télévision yàqu nañ ñoo xam ne recensé nañ leen xam nañ leen am ñoo xam ni seeni karoog tabax ba miir ba daanu na dégg nga am ñoo xam ni courant bi lii dansé bi mooy am na fosu dee léegi ci courant nit ku ne xam na ko fépp fu ñu war a sécuriser ba nit du fa war a jaar dañ ko war a sécuriser te màggal gi ci ci nawet lay am kon matuwaay yëpp yu ñu war a jël war nañ koo jël waaw ci ndimbal nag parce que ndimbal nag daa war a gaaw fu ñu toll lii du loo xam ni dañ cee war a xaar suba ak suba wala ñuy xaar muy jógee ci kaw ak wàcc kenn ku ne war na cee dugal loxoom saytu askan wi ndax askan wi sonn na ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp particulièrement ni ma ko waxee woon Cheikh Mamadou Mountakha ñu ngi koy gërëm waaye di gërëm sapeur pompier bu baax ci taxawaay yi di gërëm Senelec bu baax di gërëm tamit ki nga xam ne bokk nañ liggéey bi muy sous-préfet euh, Babacar Mar bi nga xam ne dañ li tax ñu gërëm ko li tax ma gërëm ko fii nag mooy man du ma politicien damaa gis mu def mooy nit ki bu fekkee dafa jóg ànd ak yow ci terrain bi te fu mu yable ni la taxawal ba loola sotti xoolal ma ngeen ànd ñu xool ñun ñëpp ñu xool il ñu gërëm ko ku def lu baax it ñu gërëm ko foo yem ñu yem fa waaye daal nañu xam ne lii moom lu ñu war a taxaw la te incha allahu rabi taxaw di leen xool koo xam ne ni nag defoo li nga war a def foo mën a jaar danañ ko danañ ko jooytu boo doon dem ci yàllaa ki ñëw danañ la diw yaa defut li nga war a def ba lépp leer ñi ngi taxaw di leen xool di leen suivre euh, te it allah xam nañ ni ragaluñ ci li ñuy wax ñi ngi lay gërëm ci sa taxawaay bu baax a baax góoram mbub ñi ngi lay gërëm bu baax ci sa taxawaay ndax gis nañ ni fu ñu taxaw yaag ñun yoo fa bokk taxaw muy fii muy feneen fu mu di doon di gërëm journaliste yii nga xam ne ñoom lañ jàkkaar lool parce que ñoom it ñi ngi dugg ci biir ndox bi di di di ànd ak askan wi kon loolu xam nañ ni buñ amoon ay milliarde danañ ko def waaye nag yéen a ngi bokk ci biir alerte mooy loo mënta faj ci sa loxo nga mën koo wax ba nit ñi mën ko dégg ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu